est-ce que ñi fi nekk tey gis nga ne ñu ngi ci loolu lu mën a yëkkati askan wi ci mouvement d'ensemble xëy na après set setal yi dox bu ñu wàññee njëgu dund gi ñu appliqué ko yépp mën a jaar yoon ñi fi nekk tey gis nga ne. ñu ngi ci yoonu c'est-à-dire euh, mën a goo mën a goo leen juger ci loolu parce que lu matul ñetti weer. mais mën nga évaluer. waaw atama ñëw lu matul ñetti weer mënoo xam ndax suivi li ñuy wax suivi li ngay xam li ngay wax suivi foog mu am. juróom benn weer juróom ñaari weer am at ak yooyu kon fi ñu ngi dee ko rek départ cest à li nga fii li nga mën a xayma mooy li ma doon wax volonté ak détermination. gis nga ko ci ñoom. waaw ok moom gis naa ko. d'accord donc bu fenee bu fekkee ne volonté bi ak détermination bi am nañ ko ñi ñu jox responsabilité yi xam ne attention su ma doxalut euh, voilà donc dinañ doxal. comme ni ma ko waxee waa population bi ñu gis ne administration bi soppi na doxalin soppi na taxawaay bu boobaa ñoom it dañ ciy topp loolu mooy mbir mi. Khalil waaw kon euh, ñu wax ci set setal bi yaa ngi koy tudd sànq la problématique du set setal <laughs> lan moo tax ci réew mi mun nañu fee def set setal bu jaar yoon wala suñu réew mi mënta set ba mukk ak liñ fiy sumb yëpp président indiloon ñooñu Macky Sall clinique day président Bassirou Diomaye fay tam gis nañ ko keroog mais on a toujours le même problème. alors lu tax mooy suivi. ok ab organisation. d'accord damay waaj a publier ci sama page Facebook benn euh, post sur. set setal ak développement parce que lépp lépp euh, likkaloo lépp likkaloo bon euh, man euh, premier juin dem naa ci set setal bi mm. voilà jënd naa say ay pelle ay râteau ay balai ak yooyu ànd ak yenn responsable yi militant mm. ñu dem ak foofu fi ma dëkk ñu ñu ñu ñu ñu def set setal mais dama def benn commentaire ma ne war na noo jóge ci benn yoon par weer nit ñu daje bale mbedd et cetera parce que weer fanweeri fan la soo xëyee bale ba jant so mais après am na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ciy topp euh, pédagogie la président bi pédagogie la dugal foofu ñun ñoo war a comprendre ne dañu war a jóge ci une fois par mois dem ci une fois par jour loolu ni nga koy amee mooy organisation autonome des population population yi dañu am seeni organisation Macky Sall ngi fi woon ñu ngi ak seeni organisation mm. avant Macky Sall amoon nañ yooyu organisation joomaay euh, ngi fi am nañ boobu ordre bu ba joomaay demee dañuy am boobu ordre donc nañu appuyé wu ci organisation pays population yi ASC vraiment vraiment vraiment dama ne ci ku bëgg a liggéey mm. comme ñoom ni ñu ko waxee euh, xéewal la bu yàlla jox Sénégal parce que jeunes yi dañ leen dañoo organiser wu ci ASC am man pour pourquoi man di la ko wax bañ nekkee clandestinité nga xam ne booba parti politique amu fi te fokk ñuy yëngu mobiliser population yi yee leen pour ñu xeex ak gouvernement bi fi ne hmm. mais ci ASC yi lañ jaar di organiser booba ASC mooy association sportive et culturelle donc ñun dañu dem engagé section culturelle yi. Mm. des ASC. di développer vraiment ay set setal set setal développer su nawet bi ñëw ay euh, campagne de nivaquinisation. Mm. pour vraiment. paludisme waaw paludisme ak yooyu wàññi di développer des cours de rattrapage pour candidats yi. di développe di def ay euh, sketch lañ ko tuddee les soirées culturelles bon yéen fekkewu leen ko soirée culturelle maanaam dañuy dem daje ci plage quartier bi jeunes yi di def ay sketch ay scénette ay théâtre ñëpp dañuy génn waa quartier bi alors ñu di leen expliquer yu baree baree bare à l'époque même les faits de société hein, à l'époque euh, daananu nun dañ daan xeex fee euh, xeesal mm-hmm. <laughs> dañ daan expliquer jigéen ñi et naka la war a demee ak yu mel noonu alors booba ci clandestinité man mi maa doon responsable bi amoon dañu amoon influence vraiment ci ASC yi donc léegi loolu su mënoon a dellu si que bi loolu dañee la violence dugg ci sport bi déjà dañu déjà section culturelle dañoo dee kenn waxatul section culturelle ASC kon ma ne leen AS moo ci des loolu laa leen daan wax. Mhm. assemblée nationale mooy dëgg sax. association sportive mais même ma ne leen S bi sax day dañ. Mhm. F moo koy remplacer football association de football. alors bu njëkk dañ daan de wax euh, amitié d'abord compétition ensuite. Mhm. gars yi dinañu football ba. seen xol sedd doo dégg ñu saagaante waxuma la nag ñuy xeex di génn ay jaasee ki yan mais léegi xoolal violence bi nekk ci ASC yi mm-hmm. alors que jeunes yi dañu war a am fraternité ci seen biir solidarité ci seen biir mm-hmm. et cetera et cetera donc yooyu la ñu war a lijjanti te pour man jafewut su ci gouvernement bi jëlee ay décisions les maires yi voilà euh, jàpp ci euh, ñu jàppale ASC yi comme ni ma ko waxee léegi jigéen ñi jàpp ci imaam yi jàpp ci curé yi jàpp ci et cetera et cetera mais car benn quartier dootul tilim. Ah. d'abord ku fa jaarati bëgg a tilimal. kala kala kan yow moo saa waay foral affaire bi waaye dañuy tere tilimal. noonu lay demee day daal dugg ci bopp yi. Mm-hmm. fépp set. pourquoi ñeneen réew yu set te ñun mënuñoo set mën na noo set boo dégg naa Rwanda boo demee du mënoo for bant ah. boo secreto war na fay mën a am donc euh, li may wax maanaam jël décision bi hmm. ak am suivi rigueur bi hmm. c'est important. Euh, mais mais mais Fatou balaa muy dem souvent souvent euh, euh, président côté boobu jafe-jafe bi ñuy bi ñuy am mooy mooy mooy acte citoyenneté bi ngay bi ngay wax parce que tey même si ASC yooyu la da nga gis peut-être politique bi da ciy dugg de de telle que xëy na taxawaay bi ñu waroon a am peut-être ci seen i seen i gox duñ ko am da nga gis benn ASC boo xam ne dafay organiser mu am ay force politiques yu bëri yu fa nekk tey bu ñu wootee pour ñu mën a def set setal peut-être benn. Euh, ki nga xamante ni moom mooy jiite xëy na nekk ci benn force euh, politique xëy na bu wootee ñeneen ñi nga xamante ni bokkuñu ak moom gis-gis ci politique xëy na mën nañu bañ a bañ a wuyu si te loolu jàpp naa ne euh, war nañ ko génn ci mentalité li nga xamante ni moom moo di moom moo di association parce que association yi dafa nekk yoo xamante ni dafa war a taxawu li nga xamante moom moo di gox gi en dehors li nga xamante ni moom moo di moom moo di moom moo di politique parfaitement d'abord d'abord ni ñu déggee politique ci Sénégal lañu dañ ko war a seetaat. foofu la problème bi commencé. te gisoo souvent souvent politique mooy la la féete fee di di ay jaxase mélange ay ay ay ay suuf voilà loolu pour ñu baree bare jàpp nañ loolooy politique. mais loolu du politique. moo tax ma tudde ko làqar ci <laughs> kaay ay làqar ci kat la ñuy jaawale ak politique toujours dama leen naan. Euh, Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ca Madinatul Munawara day jiite ci jàkka ji ba pare jiite état mm-hmm. ah oui oui jiite état donc politique kay lu lu sell la lu baax la lu jub la luy defar gox bi mooy politique. Hmm? luy defar gox beeg réew mi mooy politique. mu ngoog euh, il faut ñu sóoraalewaat affaire yi xam nga dëkk ci quartier yow am nga loo. dunde quartier bi mu wóor la ne ñu bare amuñu du ñu lekk ba suur walla naan ba mànn mhm. yow nga dëkk ci jàkka ji te loolee intéressé wu la mhm. ah non c'est que des na ah oui oui oui yàlla ci jaam yàlla yi nga koy amee mbaa nga ñàkke ko ci mhm. donc politique su fekkee ne li ko yëkkati mooy fexe ba doomu aadama yi seen nekkin mën a gën a naat mais tuyaaba la parce que kii mi ngi toog tegalay tànkam di seetaan match football yow seetaanoo match naanoo attaaya sol nga saw daal pour mën a dem wax ak ñeneen pour ñu mën a jóg lijjanti lii walla lii walla lii te muy lu baax ci doomu aadama kooku dafa am solo trop donc ma daal defe naa ne Euh, Diomaye ak Ousmane Sonko <laughs> am nañu occasion euh, bu favorable pour ñu mën a yëkkati mbir yi bu ko defee kon ASC yi politique yi am nañu ay parti parti yi mën nañoo def seeni politique waaye ñu ne ASC mais attends tour de famille yeeg yenn daayira yeeg gars yi am ay groupe whatsapp du jeex du xaaj mhm. mais kenn du fa wax politique kon mën nañu ne ASC yi dañuy tere ku fay wax politique ndax quartier bi set doo gis benn parti politique bu la ne non man d'accord ma ci quartier bi tilim ci set dama bëgg mu tilim doo ko gis kon bu fekkente ne fexe nañu ba euh, ba bii passé joomaay daf ne na ñëpp noonu la ko waxee hmm. defe naa ne peut waa Pastef ñoom war nañoo taxawe noonu euh, en tout cas man fële yoof ñu vraiment amuloon benn problème hmm. mais war nañoo fexe ba loolu nit ñëpp nànd ko nit ñëpp comprendre ko hmm. parce que man bu ma dëkkee fenn am ñu jóg ñëw di set di setal fi ma dëkk di ko bale di ko rato di ko defar te man bokkuma ci y problème hmm. y problème donc defe naa ne euh, loolu euh, te te pourtant de loolu ku ne da cee war a dugal sa kàddu mais boo xoolee sa politique ni muy feeñee ci bopp nit moo tax ku ne di hmm. waaye bu ñu fexe woon ba politique ñu réhabilité ko kon imaam bi dina ci ñimee wax dina ci sañ a wax dina ci nangoo wax ba dugg ci sax mu ngoog waaye li fekk dañuy jàpp ne ah bu ci wax ñaa kon du ci wax te pourtant quartier bi set day bokk ci wér-gu-yaramu nit ñi day bokk ci qualité de vie et cetera et hmm. alors ñu avancer xale fekkee amoo ci beneen laaj euh, ñu wax ci euh, wàllu impo gis nañu coow li mu jur ci Sénégal entreprise de press yu bari daanaka ñoom la jafe-jafe bi njëkk a indil ay gàllankoor ñu ci bari fi mu ne am nañu sax problème mu fay ay salaire la dette fiscale ci entreprise de presse yi naka la ñu ko war a gérer tey parce que ñi fi ñëw bees daa mel ni ñu ngi jëm ci le tout impôt est-ce que loolu solution la.